carrapide poin com te jii ku judd dugg nga carrapide kon nag seen dii tey yéen ñi la ko defloo sax xamu leen ko <clears throat> ndax tey booy bind it foog nga def point koom kom kongo nag moo indi koom-koom kon yéen waa carrapide point com yéen maara di taal yéen kenn du leen tingom di yeey si ngom yéen ku leen bippe doo ko kippe ngeen koy boole ma dikkee mu daggal ko tikke fu mu seenti ay kirike da wuti birike yow fu mu ne na man damaa kontaan ndax wax dëgg yàlla li ngeen def ni yombul te li mu wax naan ndaanaan ci ndaa lay naan bu bëggee fanaan yéen xam nga ci ndaa ngeen di naan bu leen bëggee fanaan. may rafetlu nag teewaay waa cees Sénégal sax laay wax seen teewaay ndax fu ne nit jóge na fa mais waa Thiès dañ cee raw rawatina nag sama gox bi nga xam mooy jaxaw xam ni damaa fier man pour dëkk fii ndax euh, dafa am nit ñu baax ñu fi ne. ñoo xam bu ñu amul alal jun la dox seen doole lañ lay jàppalee démb man li ma gis si doomu aadama am na benn waa joo xam dafa ñëw ni ma man damaa foon kii muy football Barça ndax nit ñi mu gis ma ne ko Barça mun ma ah man jot jommi nit ñu mel ni day ay match Barça rek laa koy gis man ko mais nit ki mën ngaa doon barsa doon Milan doon leneen ak leneen yow mit benn nit en personne ndax loolu lu koy may mooy jàmm ji nga am waa réew mi. réew mi nekk xam naa ni ku leen ji jàmm ñu ñu dellu la jàmm ja ndax fi mu ne Sénégal léegi kenn moomul kenn ndax boo xoolee tey jii nit ki léeg mu sol ay yére mu leer jëndaloo ko yére yi léeg mu lekk bu suur mu yow mu leer la ne jox ko mu lekk mu naan ba maan jox ko mu naan kon kooku bu la yëgee yëg ko rek ngay mën a def. ndax àdduna amul solo boo ko déggee wutal ko lu mu sol. tayir ba ngay rey ndax baatu mbubb ma la dul dagg. te fii àdduna lu fi waay def defit la bañ defete tax nag ñuy def ndax fa ngay taxaw di fa gëse den yàlla tëral na koo xam tey jii bu ko yëkkatoo tant bu ko yëkkatoo boo fëggee bu fëggee rek ngeen këlëb ngay romb di jour ñu naan la waaye sa waay yaa mën a football waaye yaa neex tànk yàlla tëral koo xam ni bu ko yëkkatiwaatoon tey capitaine d'équipe ba moom lañ koy takkal nga ñëw nag ñu naan la waaye daam seen mooy booy tu parles bien yaa mën a wax booy oh doo nit ngay doxee mbagg yàlla tëral koo xam buñ ko yëkkatiwaatoon tey répertoire ba mu yóbbaale xaju ci armoire boo ubbee sa tiroir yow doo ko gis moo tax ñu créé carte mémoire. affaire diirante mbagg bay nga wax noonu asa nekkul loolu moo nekk sa diggante ak Pape Ndiaye coppal ba jubóobu leen. maanaam man du ma diirante mbagg nga gis nga aar bi du concours du course man concours ma course ma. Pape Ndiaye day concours ak yow boo gisee ma loolu c'est-à-dire dafa am ay yoo xam ni léeg-léeg maanaam dañuy xam nga concurrence bokkul ak li nga xam ne nit ki da ko donn yow nga donn ko tey daam seen foogul woon ni sax dina dem bay téye micro doomu aadama yi di ko déglu man dey xamu nu waaye ñëwee ci aar bi de mais xam na naaj ñëwee bëggele moom fii ndax lii ma jote mën a kus néew du loo xam ne man maa ko jékki-jékki rek mu ñëw non yàlla la dafa nekk ci man bëgguma nag déranger kenn ci aar ku man dara a déranger rek ci ay wax ak maanaam ay yeneen affaire yoo xam maa ngi koy def. wuy woogoo ma de. ah. dinaa ñëw ma ni man damay am fu may jaar ba pare doog ci ci question boobu man ku fekk ni ku xam ne maa ngi lay déranger ci aar la ma lay déranger boo ma ko waxee sax naa ko bàyyi bu dee wax ju neex jamay wax moo tax ngay ngay ngay déranger wu ma arrêté wax ci sax di wax lu naqari bu ko defee léegi ñëpp mën a bëgg man noonu laa mel aar bi nag danga ci ciy ne ah. maanaam comme tey. Pape Ndiaye moom ngay wax nit ñi damay romb sax léegi ba da ngaa nduróog moom nduróo ji yàlla la mënta dañ te lu bokk sax nduróo tey moom bu ko bañee moo ne bu ko nangoo moo ne Sénégal nag bu nee la yaa fi mën ne li ma xew moo tax ndax léeg-léeg di nga wax loo xam ni day jaaxal doomu aadama yi am ku làq tur koo xam bu ko waxoon dëkk bi ñëpp xam mu leer la ni yàlla dafa am ñuy feeñal at mu jot mu am ku mu feeñal na gaa yi di nangu nag ku xew ren déwén mën ngaa xew keneen xew loolu mën te ñàkk du question man am na ñoo xam mënuñu dara te ñu ngi toj adduna bi xew nañu kenn mun kenn mun leen a téye ndax yàlla la man nag sama avance ku ko jël di nga bëre ba naaw soo xeexee ma wàcce la nga bëre ma jàpp daan ndax lu ma liggéey dafa. Eh. waaw Pape Ndiaye lan ngay war a jotee yéen ñaar et puis yow nga yor style am yéen a ay manière waa ay salañ salañ ay dégagement la ngay war a mën a jotee. laa sànq moo tax nga ni ma tontu ci question man la fam fu may jaar. xam nga maanaam man ku ma jotee yaa ma tooñ man ku ma jotee yaa ma tooñ ndax du ma naa fekk du ma nit kuy tricher man man ñoom nee naa ñoom dañuy taasu mais man taasu taasuma man damay wax damay wax taasuma de damay wax la may wax boo koy dégg di nga xam kii li may wax lu mu doon li wax naan wax kër mënu ko da nga jekku ndengeñ ko tëgg ko mboot mu dem ardo wax kat boo gis seen kër am na waxande te wax bu juree doom laaj ma nu muy tudd waxu ku ma joteel yaa tooñ dafa dem benn télévision taxaw fa def émission mu ñëw ñun koy da ngaa nduróog daam seen mu naan man nduróowuma kenn man sama papa Ndiaye bopp laa waay waay waaye waay waay waay fi mu ne am na yoo xam ni boo ko dawalee nit ki moom mu gën koo daw fi mu ne nag tey soo ma tegaloon suufu géej ak bu ma ko mëkkee xam buy mbuuraaka xam buy suufu géej man plateau bu ne taxaw naa fa podium bu ne taxaw naa fa mu def ma benn jëf joo xam ni àdduna bépp dañ koy waxtaane dafa ñëw Thiès jour tabaski du ma ko fàtte mukk ku ney tëgg te bis booba fekkoon na àdduna bi artiste yëpp di tëgg moom sama mbokk la ñoo bokk benn maam ma comme dafa ñëw di si jarul may dem ay Dakar ndax boobu ay Youssou Ndour ku gi tëgg man Youssou Ndour sa su ma gisee day yàqamti ma yéeg mu jox ma micro yeneen artistes yu mag tamit kon nak man su ma ci Papa yéeg mu ne duma jox micro kooku man damaa yaakaar dafa am benn affaire bu mu ma teel wala loo xam dama ko ci gêné wala dara moo tax sànq ma waxee noonu yaa ngi dégg am na yoo xam nag bu fekkee man dama yéeg ci yëfu nit dara ma koo def ma jàpp sama ñàmbur ndax yéeg ñëw sama dëkk bi diffusé ma yéeg mu nga téye micro ma ñëw mun du ma la jox pare naan ku ma xamul na ma laaj artiste dakaar yi man man maay dem Dakar di ko laaj mu melni legui ben maître bu yor sa ben élève diko inter na ku yek sama harmo da ngay xaar ma wolo man kenn duma ma interroger dedet kenn duma interroger segum nak mom mo am sañ-sañ gog waxuma lak man mi nak c'est que fi aduna no fi mel nit ka mel nako de waye nak bañ defete tax ñuy def ar bi dafa doon lo xamni du len ndax fi ne ñu doy judd fekk ko fi ñeneen ak ñeneen dañuy ñëw sen nak yalla ko ni ko paw ni ko defal li nga war a def day def li mu war a def après day dem keneen ñëw rek ndax léeg man nit ñi naa ma yow daam li nga def dafa neex fekk man maa ngi gis ñoo xam ne ñu ngi làkkut kenn gisagu leen kenn déggagu leen mais léeg ñu jommal koo xam ne dañ koy dégg dañ koy gis mais loolu yàlla la fi mu ne nii kenn mënul dara yàlla rek mën lii ñu def lépp xam nga defit la rek billaay defit la rek bu ñu yeboo nag te jàmm ndax àdduna amul solo yëpp ay détails la day dañ fay dañuy dem bàyyi ko fi ëllëg nettali jaay tax man de aw ma leen lu may jàpp nit ci àdduna aw ma leen lu may soxor nit ci àdduna lu waaye am yéene naa la ko lu waay am lu mu mën a day yéene naa la ko ndax ku xeebul say 1000 francs di buur boo jëndee yàpp 500 di bitéel yii du des téeméer nga jënd butéelu boisson ñaata lay jar 225 ñaataa ciy des di nga ci mën a am ërlé wala deuxième du ko yàq. bul ñëwee borom million bul ñëwee boroomi milliard bul ñëwee kenn ndax lu waay am yàllaa la ko jox yéene ko ko te xam sunu borom la yàlla moo fi nekk de moom mooy joxe nag képp ku yaakaar ni yaay jox sa bopp yaa ngi nax sa bopp ndax bu nit doon may boppam kenn du jeexal dara yaakaar yóbbu nit màkk waaye dëkk boo dem am na jàkkaak ilimaan li olof Njaay di wax naan boo xonetee da ngay jéem a honnête ñu toggal la omelette toog ci sàkket boo ko lekkee lépp nekk ñu woo bi net mu yenu lekket yóbbu ko makket jox ko odet odet invité amet feetu ñoom nanet jox ko crevette ak croquette mu jóge fu mu yóbbu ko toilette mu sangu ba set génn diwo diwu net yoon ngandam yet moo doo serviette sol liket dal moket gàddu poset sol coquette yor fourchette di càpp bulet fii nag ku malonet doo ñëw carapide point com